alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñëpp ah, di ko jaar ci ah, rajo Baol Média di leen di leen nuyu ah, di koy jaar jaarale ci yéen ah, di leen nuyu waa di nuyu ñëpp nag di nuyu jëwriñ ji itam waaye mm-hmm. ah, kon nag ñu leen nuyu baax baax baax am na mbégte baax nag ci teew ngeen teew fi ci bisu màggal gi rawatina ci bisu màggal gi waaw waaw kon waaw jërëjëf Mbacke xam naa ni nu koy faral saa su nekk rek tey la àll talaata yem ak juróom-benni fan ci weeru li nga xam si maanaam moo di weeru octobre atum 2020 di bis bi nga xam si maanaam ci la ñuy màggal màggalu Touba maanaam tey jii boo nu doon wax yëg-yëg bi nga xam si moom nga am ginnaaw bi nga xam si sa maam jooju tukki na ci li nga xam si maanaam def fa juróom-ñaareet juróom-ñaari weer mu nekk ci tartar yu métti yoon yoo xam si mu dellu soir Mbacke bala tey lan nga yëg xanaa euh, sant yàlla bu baax mhm. nga xam ne moom la ko sa sëriñ bi sàkkoo ci ñun mhm. nga xam ne bisub euh, euh, sant yàlla mm-hmm. li nga li nga wax euh, bis bii dafa dajewoon ak bis bu metti mm-hmm. ndax bis boo xam ne ci la ko ci saayir ci la ko tubaab bi jël si woon mm-hmm. doon ko sànq <coughs> ngir seet ba xam dañ koy def ba xam dañ koy dañ koy tëj wala dañ koy sànq wala dañ koy rey ndax ndax loolu moo doon seen yéene waaw yàlla dogal ñu génne ko tumuraan comme tumuraan comme ni ngeen ko waxee lu ëpp juróom-ñaari weer waaw ah, kon muy muy muy lu méttee métti métti waaye nag mu dem ba delsi yàlla defal ko li mu bëggoon lépp eh, yàlla suñu borom defal ko barke bi liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ba ba delsi ci ci réewam waaw ba eh, ba delsi bañ yóbbu ko waat yóbbuwaat ko Mauritanie ah, ba mu delsiwaat bañ bañ indi ko ci Thiès ba indi ko Diourbel ba mu yàgg fa suñu ah, suñu borom xamal ko ne ko ndax bis bi da daan def saa yi masaan ñëw rek suñu borom day yokk natt yi mu ko daan natt da ko ci da ko ci yokk mhm. di siit safar mhm. yàlla wal am at nag ñëw na am ñu wute nañ ci am na ñu ne am sa seen am am na ñu ne mille trois cent mille trois cent la mhm. waaye am na ñu wax la ko jiitu waaw waaw ci ci ci gàddaay gi ah, bis ñëw yàlla suñu borom xamal ko ne ko Euh, bis euh, natt yi jeex na bis bu set lépp loo amoon at mu jot dañ la koy yokkal ay ay ay tawfeex ak xéewal ndax li nga bëggoon lépp am nga ko waaw suñu borom defal ko mu defal ko bis bi suñ tubaab def ko bis bu sant yàlla boo xam dañuy sant yàlla waaye nag sant gi mu sant sant yàlla sax doyu ko mu ne mu ne dafa bëgg Euh, mboolem koo xam ne mbég mbégam mbégum suñ mbégam la mm-hmm. mu di koy sant la yàlla mm-hmm. <coughs> kon nag bi egg ci bis bi kon bis bu rëy rëy la boo xam ne ñu tam dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. mooy am nañ ci yëg-yëg bu rëy rëy ndax bis ba mu day yaloon mu doon dem metti woon na lool lool lool loolu waaye waaye waaye bis bii nga xam ne ci la ko yàlla defaloon li mu bëggoon lépp dafa defal ko ci lu lu kaw njort ba mu dem ba nga xam ne doon xaadim rasul dem ba lépp lu mu bëggoon mu am ko dem ba amatul kenn ku gën a jege yàlla ak yónte bi Ah, loolu kon ah, mu mu defal ko ay xéwal yu tax moom mu jàpp ne sax mënut sant yàlla ba ba bëgg ñu di wax sant yàlla kon am na ci am na ci liggéey bu rëy rëy rëy ndax loolu. sëñ Touba neexul xam neexul waxtaane waaye boo nu doon tënk rek ci sëñ Touba loo yan kàddu nga nu ciy wax. waaw sëñ Touba man ah, ñoo ko jàngatee. jàngat ay waxam jàngat ay xasidam. Mm. benn baat laa ci wax mooy. Mm. man li ma gëm mooy amul kenn ko ko gën a jege yàlla mhm. amul kenn ko ko gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. man daal fa waaw foofu da ndax moom dinaa neen abdoulahi li jaam yàlla yu liggéey yonent bi sallallahu alayhi mhm. kon man maa xam lu gën a kawe loolu waaye li ma xam daal mooy amul kenn ko gën a jege yàlla amul kenn ko jege yonent bi sallallahu te kii ñu am muy sëñ Tuubaa Amérique ko Japon amu ko Chine amu ko France amu ko kon keneen amu ko amu ko ku dul kon kon war nañ ko war nañoo xam ne ñu am valeur bi am war nañ koo xam mm. ba nga xam ne am nañ loo xam ne kenn amu ko mm. kon war nañ koo téye bu baax a baax a baax mm. te sant ci yàlla waaw ndamoo ko waaw waaw war nañ ko téye ca sant ci yàlla fi jóge mukk ci teelewuñ fi xam-xam ñoo gis nga ñaabu téere bii nga xamee ne ci sa loxo bi nga ko bind mën nga noo dellu si waatal ci téere bi waa waa téere bi day téere boo xam ne maa ngi ko tuddee Cheikh Ahmadul Khadim alxaayid ar rabbaani euh, tudde ko Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne leader spirituel la maanaam njiitul diine la euh, li tax ma tudde ko mooy dama cey jàngat dundug Sëriñ Tuubaa euh, jàngat yi ay ay tomb yu am solo ci ak dundam lu mel ne jihaad bi mu doon bi mu doon jihaad waaye jàngat ci liggéey bi mu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jàngati nag maam ni mu doonee eh, njiitu njiit maam leader spirituel mm-hmm. xam nga leadership dafa am ay ponk mm-hmm. ah, li tax nit ki mm-hmm. mën a mën a jiitu waaye mën mën a ñu di ko topp waaye ñu mën a mën a fexe ba ñu ko topp mu mu ñu ànd ak moom eh, jëf li mu bëgg ba am li ba am fexe bañ am li mu bëgg fexe ba yóbbu leen fu kawe koo xam fexe bañ am lu kawe waaw ah, leader leader dëgg-dëgg mooy def loolu mm. moom nag day leader boo xam leader diine la mm. njiitul diine la maanaam moo tax ma jàngat ci lan mooy euh, leadership ba noppi mm. ni ko américain di jàngale ni ko ñe ni ko ni ko ni adduna bi di jàngale waaye indi Serigne Touba nag moom ni mu ko doxalee waaw vision bu sori bi mu amoon bu sori bi mu amoon ak bëgg-bëgg bu réy bi mu amoon ma um, ba ba te bëgg-bëgg boobu yëpp mu fexe ba am ko waaye taalibe itam mu fexe ba bañ àgg ci waaw moom itam moom itam la bëggoon fexe ba àgg ci kon muy bu am solo. Mm-hmm. waaye bu diin lépp lépp nag di mm-hmm. mm-hmm. moom mën nañu xam ñaata page la. page yi mën na euh, trois cent euh, trois cent cinquante deux page 352 pages la ah, moo tax dañ ciy andi nag ay ay bunt yu bëri ay fa li ñuy wax ay fasul fas la mm-hmm. moom muy ay chapitre mm-hmm. waaw yu bëree bëree bëri waaw dafa dafa toll dafa dañ ci andi benn boo xam nag mm-hmm. ah, nañ ci tarbiya Sëriñ Tuubaa ni mu doon tarbiya taalibe yi ak ak ay ponkam ak ay valeur valeurs yi nga xam ne moom la def ci nit ki ak eh, eh, école eh, daara yi mu sanc ak xeetu daara yi ak yu bëree bëree bëri waaye waaye buntu leadership bi nag moo nga xam ne ëpp na trente trente pages dafay doon boo xam dafa dafa boo moo xam daal dafa mel ne nit ñi moom boobu moo leen ci gën a yitteel dafa mel ne boobu moo leen ci gën a yéem mm-hmm. am nañ ko indee daal mm-hmm. ba indee ci leadership Sëriñ Touba mm-hmm. ak vision bu rëy bi mu amoon ah, bëgg bëgg àgg ci àgg ci yàlla bëgg àggal nit ñi ci yàlla ah, am am yoo yeneen yoo xam daf ko daf ko bëggoon bëggal ko taalibe yi waaye yëpp mu réalisé ko yëpp ñu am ko ah, ak ak ñu ko jàngate ba génne ko ci waxi sëñ Tuubaa ci boppam génne ko ci waxi ñu ko ñu bind ci moom Seexoon Bachir moom sëñ Mat Lamin Jóob da nga ak ak ak rawatina nag xasida sëñ Tuubaa yi nga xam ne moom koy dañ ko cee bu baax a baax ngir génn xam sëñ Tuubaa moom lan la waxal boppam ak lan la bëggaloon boppam waaw ko ci andi waaw kon kon daal man def naa ma def naa tënk ni maanaam loo yooyu daal jëm nañ ko andi ci téere bi jëmale ko indi mu nekk loo xam si lu am solo la xam naa nag doon tàqali ko mukk ca <laughs> laaju kii luñ koy wecce ko ndax nag wax dëgg yàlla njariñ li am na solo trop ak ku ko bëgg fan nga koy amee. waaw waaw waaw moom xam nga euh, xëy na xëy na ñun. Euh, xëy na sax defuñ ko ab liggéey ndax li Sëriñ Tuubaa defal mm. eh, eh, ya li ñu ko jox te di ko jàll ci taalibe ñu li ñu ko jox mm. ëpp na li ñu amee mm, li ñu amee li ñu mën a amee ci téere yi mm-hmm. waaye nag dafa toll eh, boo ko bindee xëy na pour ngir tasaare ko ngir fexe ba nga xam ne ñi koy téewoo ñoo koy am maanaam mm-hmm. wecc wecc ko daal da ci baax mm-hmm. waaw waaw moo tax moo tax moo tax ñi nga xam ne ñoo ci ko ay téere rawaat na ñu nekk ci li wër jumaa ja daar ak daar bi nam a daar bi xasayit ak ak ak ñi wecc ko téere ci jumaa ji yëpp am nañ ko mm-hmm. ba am am na ci Dakar yenn ñu ko am mm-hmm. ah, ah, jun lañ ko jun lañ ko wecc koo waaw waaw jun lañ koy wecc koo waaw waaw yàlla dogal nag mm-hmm. bañ ko jëkkee mool yàggu dara mu jeex ba ba fi ne mi bi móolum ñaareel la eh, te itam li ci des bëriwut ah, waaw kon daal noonu la demee yàlla yàlla dogal tam Ah, ñu koy traduire ba nga xam traduire nañ ko ba noppi fi ne nii ci français fi ne nii daanaka correction yi sax daanaka yëpp sol nañ ko yooyu mm-hmm. daanaka en place mm-hmm. euh, ak impression ak ngool rek moo ci des fi ne nii mm-hmm. ah, bu français bi fi ne jàpp nañu balaa yàgg dina génn incha allah ah, ak sa kon xam naa mënuñoo dem it ba tàqalikoo mukk ca kenn ku ne xam na ni képp ku fi mas a toog bu nekk rek Touba rek ngay lif sëñ Muntaxa la suñu borom may mu yilif Poroxaan yilif Njaareem yilif uh, fi am ci maanaam moo di Touba nga doon jàmbaar joo xam si ci sa taxawaay ci Poroxaan donte nag xaw na weesu tuuti sax waaye nag mënuñ cee bañ a dellu si uh, Mbàkke Balla tuuti ci Poroxaan rek. waaw waaw waaw Poroxaan Poroxaan moom itam day lu am solo mm-hmm. ndax uh, ku ne xam ne Serigne Touba ni mu fonke woon Maam Jaara mm-hmm. ku ne xam ne nam ni mu bëgg woon barab ba itam bi nga xam dara wax naan ku ne jàng ca barab ba boo ma fekkul ma fekk la fa waaw ah, muy lu rëy yàlla dogal tam ah, sëriñ Tuubaa daan digal mag ñi mag ñi jiitu woon di leen digal ñu toppatoo ñu rawat na ñu nekkoon Saalum ñu toppatoo barab maam jaara ba ba yàlla dogal Cheikh Modou Bachir dafa dem ba mujj lépp tege ci lo ci loxol Cheikh Modou Bachir ci ndigalu Serigne Touba itam ndax Serigne Touba moo ko digaloon muy muy nemmi ko barab ba di nemmi ko maam jaara waaye yàlla dogal ñëpp waa Saalum ak ñëpp ànd dajale teg ko ci loxoom ji eh, mu mu mu mu mu yor dëkk ba. ci jamono yu métti nag yoo xam ne yu dara nekk fa woon. waaw ndax kon xam ne maam Jaara ci ay ci nekkoon. waaye mu dundal ko ba mu mel ne. loolu tam loolu tam dañuy xam ne nag njàmbaaru Cheikh Mouhamed tam am na ci. waaw waaw nga xam ne ci loolu lay dox. Cheikh Cheikh Moussa Bachir yor ko di ko di ko doxal. ba mu egsi ci loxol Cheikh Cheikh Mouhamed Mountakha. waaye si mu tam yokk ko lool. gis ngeen jumaa ju rëy jëm fa def waaye itam la fa fekkoon rek fexe na moom gën a gën a gën a am gën a baax a am qualité nga daar ji itam yàlla dogal na moom bi mu tumu tey la fay mokka alxuraan nga xam ne ay fanweer nit ay ñeent fukki loo loolu tam waaw am na ci am am na ci paraxaan kon kon daal paraxaan moom lu am solo ci yoonu murid la lu am solo ci yoonu murid la nga xam ne ñëpp ñëpp ko bokk ndax yëfi maam jaar la yëfi Serigne Touba kon ñëpp ko bokk waaye nag yàlla dogal jagleel ko euh, Cheikh Cheikh Amadou Bachir ak waa këram mm-hmm. kon ñu kan nag ñu di sant yàlla baax di santaat Sëñ Tuubaa baax waaye di sant Cheikh Amadou Bachir mi nga xam ne moo liggéey loolu tam mm-hmm, mm-hmm. ak sa kon fa yekkoon waaye Mbàkke jamono daa am fu mu toll ca am foo xam si xaj na tartar yi xaw na metti lool du nekk yow nag ba tàqali ko lan nga nuy dénk ma ne ko jamono dafa métti ca tartar yi xaw a metti lool du tàqali ko yow mukk nag dénkaane wuñu Mbàkke lan nga nuy dénk fi jamono toll waaw xanaa fii jamono jamono toll de ma xam bu ko doon bu ko doon bu ko doon tënk moom dama dama naan mhm. yàlla dañoo jox kilifa goo xam ne mhm. xam na diine xam na àdduna xam na ala xam na sëriñ xam na xam na sëriñ Tuubaa mhm. kon mm, déglu ndigal muy muy Cheikh Mamadou Mountakha mhm. buñ buñ dee déglu ay ndigalam mhm. di ko topp mhm. liñ liñ liñ ragal dañ ci mucc waaye waaye liñ bëgg itam dañ ko am waaw waaw ndax moom bëggu bëggu dara ci boppam waaw yàlla ak yonent ak Serigne Touba rek la bëgg ak bëgg ko liggéeyal ak taalibe yi waaw amul lenn lu mu bëggal boppam kon nag euh, ku mel noonu bu ñu ko yàlla joxee buñ dee déglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem lépp luñ bëgg luñ war a mucc dañ ci mucc waaye lépp luñ bëgg dañ ko am waaw <laughs> jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke